bu ñu sukkandikoo ci Jacob Post këru taskay xibaar la goo xam ne ma nga fële ca luga moom moo joxe xabaar bi nee na daal juróom-ñetti de santé maanaam juróom nit ñoo xam ne daal ci wàllu yër la ñuy yëngu ñoo xam ne ñoo nekkoon ci hôpital Amadou saxiir mbay jamono ji nga xam ne Astou Sokhna mi ngi noppalu ñoom daal ni ñu actuellement jàpp nañu leen ba jamono ji ña nga ca police bu Louga bi xabaar boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci waa Jacob Post Mouhalim Info